mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel Foncab TV ak fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen nuyoo nag fii fii jumaa Cheikhul Xadim ji fii fi Tuubal Maxrusa di jiital nag ci nuyoo bi ki nga xam ne moo di a cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo toogee jataayu cheikhul xadim di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba li mu yéene liggéeyal cheikhul xadim lépp mu liggéey ko ci sagoom te ñu ànd kook moom di am nag mbégte dellu siwaat ginnaaw bi nga xamee ne dem nañu daaru salaam doon xeeñtu jeexiti sëriñ bi jaare ko ci sanc yi nga xam ne da ko sañc ci kaw suuf ci ak nekkam loolu léppit nag dugg ci biir liggéey bi nga xam ne euh, waa FONCAB te mooy fondation Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk nord du Amérique Amérique du Nord te mooy li ñuy tuddee États-Unis ak Canada ñu ngi koy taxawee fas yéene amal kër sëriñ Touba fu ne ci biir cadre kër Serigne Touba fu ne jooju nag ci la amale liggéey bi xam ne kër sëriñ Touba yi am ci àddina bi yëpp am na cosaan te cosaan li mooy dëkk yi nga xam ne wala kër yi nga xam ne moom la sëñ bu mag bi sañcaloon boppam te ba mu koy sañc mu sañcoon ko ngir jàng <clears throat> ak jàngale ak yar ak defare ak liggéey loolu rek moo waral ñuy xeeñcu jeexiti dëkk yooyu tàmbalee ko ci Daaru Salaam tey jii nag ñu nekk fii fi Touba nga xam ne kër gi fii ñu nekk tey di euh, jumaa Cheikhul Xadim ji Euh, incha allah danañ ci ñëw léegi wax nañu ne mooy fi sëriñ bi njëkk wàcc bi mu gisee dëkk bi bi ko yàlla wanee tegtal ko ko mu ñëw fii la njëkk wàcc def fi këram tudde ko itam Touba nga xam ne kër gi fii mu nekk nii moo doon kërug Touba gi euh, loolu nag incha allah taala ñu fas yéene ci ànd ak koo xam ne euh, du ku ñuy xamle xani yu na ani taarif la fii fi dëkk bi di Touba waaye ci mboolem Eh, béréb yi nga xam ne dañ fay soxla ñu mel ne ñoom ñuy jàngale di tasaare njàngalem Cheikhul xadim muy eh, Cheikh Ahmad Afia Cheikh Afia Ahmad Ñang sëñ Afia Ñang ñu xam ko bu baax a baax ci tool bi toolu toolub lislaam bi nga xam ne mooy toolub Cheikhul Khadim te mooy jàng ak jàngale ak yar ak gindee loolu di ab liggéeyam boo xam ne ku ko xam ci nga ko xam ñaan suñu boroom gën ko ci yàggal gën ko ci saxal te gën koo taxaw dëgëral ko ba li mu yéene liggéeyal ko sëriñ bi ci tool boobu euh, te mooy liggéey boo xam ne bu ñor sëriñ bi la mu mu mu mu ko ci sagoom euh, lii nag maanaam jataay bii nag mënul am ci lu dul lëkkaloo guñ lëkkaloog suñu bokk yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk liggéey bi di waa daayira muqaddamatul xidma nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg seen loxo euh, saytu jumaa ji Eh, yàlla dogal sëriñ Afia bu so al imaam ne ci bopp bi eh, ñu waxtaan ceeg moom rafetlu ko lool boole ñoo ko suñu rakk suñu xarit sëriñ Abdul Ahad Bousso eh, moom suñu bàyyi sëriñ Thierno Bousso nga xam ne moom ci boppam sax moo jiite li ñuy tuddee allajna saqaafiya attaabi'a li daaira te mooy commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci daaira daairatu Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdul Ahad mi ngi nii toog kon ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax ci lëkkaloo bu rafet bi nga xam ne lëkkaloo nañ ko ak ñun lëkkaloo ko lëkkaloo ko ak FONCAB incha allah bu jëlee kàddu dana ci ñëw loolu moo waral sax jataay bi mën a am nii nga xam ne noonu lañ ko bëggee kon sëriñ Afia ginnaaw bi ñu la nuyoo nuyu sëñ Abdou Lahad euh, ñu ngi lay fas yéene jox kàddu gi bëgg rek nga dikkal ñu <clears throat> ci cosaanal Touba euh, sanc bi buñ mënee xam euh, lan moo waral sëriñ bi sanc tuubaa ak it kañ la ko sanc ak bi mu ko sancee ba nekk fii itam naka la fi nekkee woon nu mu fi doon dundee ak saadi xam yi nga xam ne ñoo ko njëkkoon a topp bu ko defee ci biir loolu ñu laajaale ci it nag su mënee nekk ñu xamaale ñi nga xam ne ñoom la fi sëriñ bi njëkk a maanaam defare ba wàcce leen ndax ñoo ñooñu ñoom lay euh, jox ndigal ñu tasaaroo euh, ci seeni gox ñoom itam tasaare mission tasaare risaala boobu nga xam ne mission Seex Xadim boobu nga xam ne mooy mooy bu lislaam rek ñooñu itam buñ mënee xam ñan ñan ñoo ci gën a fes ci ñi sëriñ bu wàcc fii ci biir loolu it ñu mm, xamaale solo si jëmmi Tuubaa am Touba tàmbalee ci kër gi nga xam ne mooy këru cosaan ki mooy këru Touba gi waaye it ñu boole waale ci lépp itam daaru wala boog duyóor wala diyaar yi nga xam ne sëriñ bi da koo sanc ginnaaw bi mu sancee këru Touba gi te mooy lu mel ne daarul Quddus daarul Minan daaru Rahman te mooy kër sëriñ Chouaïbou ak it fu mel ne daaru Alimil Xabir ak eh, daarul Mannaan loolu itam luñ ci mën a xamaale ci taarix seen ak solo si nga xam ne am na ko ak jëmmi Touba ci boppam en tant que ab dëkk bu toll fi mu toll tey ban ban solo ak ban wàccuwaay la am ci yoonu murit euh, yooyu yëpp daal incha allahu ak loo xam ne rek jàpp nga ne boo ñu ko baaxee dana mën a jariñ ñi nga xam ne ñooy teewlu jotaay bi war ko teewlu ji ëllëg ñooy ñu ngi koy taataan di ñaan suñu borom defal la ci tawfiq ak taysiir ba li nga bëgg a lépp nga leeral ko te ñun ñu koy diglu ñun ñu koy teewlu mën cee jariñu kon sëñ Afia du ma guddal ngi lay kon jébbal kàddu gi nga indil ñu waxtaan woowu incha allahu taala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi tayibin altahirin wa man tabaahum bi ihsanin ila yawmi din bokki jullit yi bokki yi ñuy topp ci uh, Foncab TV ak fu ngeen mën nekk ci àdduna ñu ngi leen nuyu ci nuyoob islaam bu sell bii di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Eh, di am mbégte bu baax a baax ci bokk ak yéen jotaay bi ci biir liggéey bu yaatu boo xam ne eh, taalibe Sëriñ Tuubaa yi nekk ci biir kuréel gi ñu tudd sànq muy Foncab ak Foncab TV ñu ngi koy liggéey eh, mu dugg ci biir liggéey bu yaatu bi taalibe yëpp liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu dal aw waar ci biir liggéey boobu ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal euh, di leen euh, soññ di soññ suñu bopp ci liggéey bu sell bi nga xam ne ci la ñu nekk sëriñ Fallou ñu ngi lay beral nuyoo bu baax a baax di sant bu baax ci ñaan yi ngeen ñaan di ñaan yàlla nangu ko te boole ko ñun ñëpp euh, kon ci biir loolu la ñuy xam ne barab day cosaan ci dunduk doomu aadama ak sottal ay jubluwaayam ak jubluwaay yooyu lu mën a doon moo tax sëriñ bi jox yitte bu baax a baax barab ni ko joxee jamono ni mu joxe yitte jamono noonu la joxe yitte barab euh, mu mu bokk ci cosaani euh, ab liggéeyam mmh, moo tax ni ko waxee bi mu amee ndigal ci tàmbali liggéey bi muy woote jëme ci yàlla yeesal diine ji yar taalibe yi Eh, xamal leen mu tàmbalee ko ca Mbàkke Kajoor ci atum junni ak ñetti téeméer benn ci gàddaay gi eh, def fa ab diir daal di ñëw Mbàkke eh, ci mujjug junni ak ñett téeméer benn boobu walla ci njaal beenuk junni ak ñetti téeméer ñaar nekk fa ñaari at kon junni ak ñetti téeméer ñaar ak ñett ca ñeenteel ba kon la sañci bërëb bërëb bi nga xam ne mooy bërëbu boppam bi mu njëkk a sancal boppam ni nga ko waxee muy taawu euh, sancam yi mu sanc ngir euh, def fa liggéey bii nga xam ne moom la ko suñu borom doon liggéeyloo euh, ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def foofee ñaari at daaru salaam muy junne ñett téeméer ak ñeent ak junne ñett téeméer ak juróom kon ci junne ñett téeméer ak juróom benn kon la la sanc Tuuba bu ko defee ci riwaayaat nettali yi nga xam ne dégg nañ ko ci ay mag yu yu ñu yu ñu mën a sukkandikoo day mel ni jëmmi sanc Tuuba def fi kër fee sax moom mi ngi am ci bisu ci benn fanu rajab ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn yooyu ñu wax waaw 1306 ci gàddaay gi ci benn fanu weeru rajab muy ndeyi koor loolu mi ngi war a toll ak juróom-ñetti fan ci weeru mars 1889 gisu barab bi ak di fi ñëw ak di fi eh, eh, di di ko xeñtu ak di wéral eh, nekkuwaay bi loolu tàmbali ba mana a jàpp ne moom ca njëlbeenu at bu ko jiitu wut itam njëlbeenu at ma fekk na mu ne def na ko ci ci nettali sëriñ Mouhamadou Khari Bousso moom sëriñ Massamba euh, Fati radiyallahu taala anhuma wax na ne Cheikh Mouhamadou Moustapha bi muy ñëw jamono euh, daa fekk ci jaww jamono moom sëriñ Mouhamadou mu ne sëriñ Massamba Fati nettali ne guddi keroog moom la sëriñ bi àndaloon moom si Massamba ñi ñi ñëw ci béréb bi ñuy wax Touba jii ci àll bi boobu ab boo xam kenn sancagu ko mu defar loo ko fàkk loo ko barab mu fàkk ko mu lal fa jumtukaayam deram liggéey fa ab liggéeyam ba fajar di waaj a jot mu ànd ak moom delluwaat daaru salaam ba muy dugg daaru salaam te seeg noddu fajar ba sëñ bi jullee ba sëlmal fajar la ndaw di ko wax ko xabaaru feeñu Cheikh Mouhamadul Moustapha te loolu mu ngi amoon eh, ci fukki fan ci weeru muharram fukki fan ceeru tamxarit ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom benn kon fekk na ko kon yooyu jamono jooyu kon fekk na ko muy nekk ci biir àll bi eh, nga xam ne moo doon Tuubaa ginnaaw bi eh, di ko wër ak di fi jaamu yàlla ak di di ko xeñtu kon ba ca rajab ja nag kon la jëmmi sañ fi door a door am kon taarix bi daal buñ sukkandikoo ci waxi mag ñi ak seeni mbind loolu lañ ci wax kon ci at bu ci atum gàddaay gi daal ci atum junni la ak ñett mi ngi nekk ci benn fanu rajab jëmmi sanc bi benn fanu rajab ci atum mooy ndeyu koor ci atum junni ak ñett téeméer ak juróom-benn tolloog 8 mars 1889 ba tax mu sanc ko nag moo li tax mu sanc Daaru Salaam bari na yuñ bokkule am nay sabab yoo xam ne yu feeñ la yu ñu yu fës waaye am na ay sabab yu làqu mooy sabab yi baatin sabab yi feeñ mën nañ cee tuddu ne ba mu sañcee Daaru Salaam ba nekk faak taalibe yi yim doon defar te ñu jaayante woon nag moom ci Mbàkke Kajoor ànd ak moom ñëw Mbàkke Bawol ba mu amee ñaari at mel ne barab ba tàmbali naa wettiliku ab jaxasoo tàmbali faa am ba mel ni soxla na beneen barab bu gën a dogu gën a sori gën a wéet boo xam ne dafay da ko da koy jagleel ñi nga xam ne ñoom la ñoom lay defar rek moo ñi muy ñi jàng alquran ak ñi jàng xam-xam ak ñi nga xam ñooy tarbiyawu ñi nga xam ne nag ñoom dañuy dëkk di jaamu yàlla ak liggéey ñoom ñu ne ci fu mel daal Daaru Salaam wala yeneen barab yooyu jàpp ni ca ñoom bi mu amee barab bi bay sant sunu boroom di ko ñaanit di sant sunu boroom ci barab euh, jox gi ko jox barab bi di ko ñaanit li mu bëgg ci barab bi ba mu waxee euh, alhamdulillahi alkarimi zilminan ala bi furudin wa sunan chakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani mi ne mi ngi sant yàlla mu baa mu tedd mi nga xam ne mooy borom xéwal yi eh, ci def gim ko def muy koo xam ne itam jëpp mi ngi ko jëmale ci jëf farata ak sunna di ko santit nag ci indi gi mu ko indi ci barab bi muy barab boo xam ne bi ci dikkee lam amoon ci gàllankoor teggiku na waaye bokk na ci sabab yi feeñ itam ci yi nga xam ne moo tax mu sañ ci dëkk bi mooy ci jëmmi boppam doxuk boppam jëm ci boroomam am na lum namoon ci jëmmam jëmmi boppam fu mu bëggoon a yàgg ci yàlla bëgg faa yàgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a doon jaamub yàlla bu dara raxul liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu gën a kawe te loolu am na laaj na mu am fu mu jaar ak bakkanam ak jëmmi boppam Eh, teg ay toggoo ay coono aki i fitna yuy not bakkan te loolu itam doon na aajoo barab boo xam ne bu ko fa bu fa nekkee eh, du am benn gàllankoor ci dundiinu boppam yu mu bëgg eh, ngir mën a am lam la mu bëgg ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa loolu itam sabab soosu leer na ci bi mu waxee ne ginnaaw bi mu teg na ci ne waqaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma haddaba bi taxalli mu ne bi ko borom indee ci barab bi womat na ko fi eh, jëme ko ci boppam mu gën a jege mu gën koo jege nag def ko takkaayal ko nag mboolem ngëneel yi melokaan yi gën eh, te mat te yi suñ borom bëgg ci jaam ginnaaw ba nga xamee teqale ko nak yeneen melokaan yi nga xam ne ñooy safaanub yooya xam fii ci bayit di mel ne ku junj fi mu tolloon ci dox ci yooyu jamono mooy def na taxaliya ba noppi taxalli na ba noppi bëgg a jëm nag ci taxalli te bi mu ñëwee ci barab bi loolu dox taxalli boobu te mooy eh, ranga rango mboolem jikko yu rafet yu sell yu kawe yu mat ya nga xam ne dëgg dëgg nit yàlla yee loolu la ñuy yóotu te nañ ne lenn luy ak manqué ko suufi mës na ci moom waaye la muy la muy xool moo kawe kon bi mu ñëwee fii kon euh, loolu yokk jàppandal na ko mu ne kon wuti tam barab boo xam ne ci jëmmi boppam moom tarbiya boppam aku doxa boppam ci boroomam dana gën a jàppandi loolu bokk na ci sabab yi yiñ mën a xam ci tax mu ñëw fi waaye boo demee ci euh, xasida raaya muy xal bii lahu fi ataabi jismu mu ne ci biir diwaanu saadatil muridin fi am daa xeer mursalin ca tarjumaan ji ma ngay wax ne eh, diwaan bi boroom ma ngi ko binde ci dëkkuwaayam bi mu di Tuuba yàlla na ko yàlla aar muy dëkkuwaay boo xam ne dara taxut borom diwaan bi ki bind lii dëkk fi lu dul liggéey jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi mu am nag sababu baatin boo xam ne moom moo moo gën a yaatu te yi ñuy wax yëpp it dugaat na ci biir mooy ne barab bi Tuuba suuf si dafa nekk suuf soo xam ne su sell la su barkeel la bokk ci pàkki sunu boroom yi mu tànn ci kaw suuf euh, def ci ay ngëneel euh, nga xam ne ñi am baatin dañuy xàmmee barab yi mel noonu ci kaw suuf ndax day ami màndarga yoo xam ne ci kaw lay bàyyi ko euh, mandargay kaw mandarga yoo xam ne ci kaw lay bàyyi ko euh, di feeñ ci kaw suuf ñi am basira nag dañuy gis loola di xam barab yi nga xam ne barab bokk ci barab dañ koy dañ koy xam euh, bu ko defee loolu nag boroomam xamal na ko moom gis na moom ci moom gis na sellaayu suuf si ak barkeelam ak ak ngëneel li nga xam suñu borom gis def na ko fi ni nga xamee ne sax am na ay nit yàlla yu ko jiitu woon fii ci barab bi eh, ñoo xam ne yàlla wanoon na leen ko bañ bëggoon ko doon ko sabablu waaye biñ fi excès lañ leen xamal ne barab bi kat am na borom ba noppi. Eh, moo tax eh, am na ci nettali sëñ Modou Khari yi mu wax ne sëriñ bi nee na li tax Touba gënal ko ci barabam yi yëpp mooy day barab boo xam ne. niti yàlla yu bari dañ koo bëggoon mu bokk ci niti yàlla yi ko bëggoon boroomam itam bëggal ko ko léegi nag sunu boroom wax barab bi ne ko nag ginnaaw kat ñu bari dañ laa bëgg te moom mii mu bokk ci ñi la bëgg dama bëgg yow nga tànn ci ñi la bëgg ñëpp ko ci féetal barab bi ne moom tànn na sëriñ bi kon yàlla kon moom daf ko bëggoon suñu borom bëggal ko ko barab bi itam bëggal boppam bëggal sëñ bi boppam suñu borom jox ko ko mu moom ko kon ci baateen ni mu ko moomee ci eh, zahir kon loolu moo waral eh, leer gi nga xam ne moo doon firndeel selaayu barab bi nga xam borom ba si ñoo doon gis leer googu ci barab bi leer gi barab bi leer Eh, di gindi ña koy ña koy gis bañ egsi ci moom itam bi mu ñëwee kon barab boobu leer googu fugloon ci nag moom ab diir bu yàgg ci ay barab yu wuute ci dëkk bi eh, ngir bëgg a xam fan la xolub leer gi nekk ba boroom xamal ko ne ko xolub leer gi mu ngi ci barab mi ngi fii nga xam ne tey mooy fii mu nekk tey jii ñu ko fii siyaare eh, foofu nañ ak bépp moo fi nekkoon mu julli woon fi yor bi mu demee nag ba kii borom tegtal ko ne ko fa nga jullee yor ci bis sàngam ci waxtu sàngam fa nga jullee ci bis sàngam foofe mooy dëgg-dëgg yi xolub bi mu jël si ko kon barab bi mu sanc ko ko ngir mm, may gu ko sun borom may féetal gum ko ko féetal mu nekk barab yu sell yi ci kaw suuf yu barkeel yu leer yu am ngëneel yi mu sanc ko nag am yéene def ko mu nekk béréb bi sunu borom gën a bëgg ci kaw suuf ci sow jant fi gën sunu borom suuf sunu gën a bëgg ci suufus sow jant nga xam ne nañ tànne Makka ak Madina ak euh, baytul maqdis euh, sellal ko barkel ko cosaan loole moom la Tuubaa am mooy cosaanul sellu barab bi ak fu ñuy wax tóori Sina fële sellaay yooyu moo ne ci barab bi euh, mu am yeneen sanc ko kon ngir def barab bi mu dundu bay taxaw taxawaay yu mel ni taxawaay ya dëkk yooyee am na Makka Madina ak uh, Quds am ci taxawaay ak uh, aku ràññiku ci diine ak ku sell mu am yéene def barab bi mu mel noona kon mu sanc ko kon ngir bëgg koo def muy saxuwaayam ak saxawaayu njabootam ak saxawaayu mboolem ñi nga xam ñoo ko yaakaar mu nekk itam sanc ko ngir mu nekk tatal diine di barab bi suñ borom gën a bëgg ci sowu jant wajaxlu yaa rabbi ahabba maskani fi ardina laka walil maahi assani ñaan suñu borom mu def barab bi mu nekk barab bi yàlla gën a bëgg ci sowu jant di barab bi yonent bi sallallahu alayhi gën a bëgg ci sowu jant loolu moo tax nag yéene jooju nga xam ne mooy yéene def ko mu nekk dëkku diine bu mag a mag a mag bu am taxawaay bu ràññikoo ràññiku doomu aadama yi di ci di ci di fi gindikoo di fi xettalikoo di fi yokkoo ci wàllu ruux ak ci wàllu zahir euh, def ko mu nekk dëkk bu mel noonu looloo waral mu taalif matlabul fawzayni eh, wax xala ñaan ci yàlla nam bëgg ëllëg barab bi mel ko kon rek du woon barab boo xam ne ko sanc nii rek ba ko defu kër gu muy jàng ak jàngalee diirub jamono mu jeex waaye ci njëlbéen la bëggoon mu nekk bu dëkk bu mag a mag a mag bu ama am aw tur bu barkeel a barkeel boo xam fu ne ci àdduna nit day jóge dafay jóge di fi ñëw di barkeelu si ak gindiku si ak yokku si ci wàllu wàllu ruux kon sanc dëkkub diine bu mag a mag a mag bu ràññi koo ci sawu jant ni Makka ak Madina ak euh, Quds ràññi ca penku loolu bokk na ci ay jubluwaayam wajal bihi daariya kal madina barakatan wal kambatal masuuna mi ngi ñaan yàlla dëkkam bii di Tuuba yàlla def ko ni Makka ak Madina ci barkel ñaan ya nga xam ne itam moom la Ibrahim ñaanoon ca ba muy dem ca Makka ba mu àgg ci barab ba ca Makka yu mel tam la ñaan ci Euh, tarjumaani Matlabul Fawzayni di wane ne kon amoon na jubluwaay bu kawe bu sori boo xam ne mooy def ko mu nekk dëkk diine bu mag a mag a mag tatal diine moo tax it mu euh, teg ci ay dénkaan yum ci yum dénkaane tabax fi jumaa nga xam ne ca ca bis fan yu njëkk ya rek la am yéene tabax jumaa ci dëkk bi te booba ab àll buñ ko di fa def ay mbaar mu mu mu mu wax fa mu ña mu mu mu am yéene tabax jumaa ba wax ko mag ñi nga xam ne ñoo ko fi njëkkoon fekk suñ bu soobee suñ Mor Jaara wax leen loolu ne dana fi juma ju mag a mag wax leen ne ñoom ñoo koy jiite walla kenn ci ñoom fu man di nekk it di di ñaanal ñi ñaanal tabax juma joojee wax fir liman banaw bina ahar rafia wax fir liman amarahum bihi jamia wa li jamii man aanum ala binaihi alladi bi fadlika antala ak di wax naan rabbi stajibaltuka min ma nawaytu la daa tuuballati ka tub fii ka bunyaana dénkaane joxe ndigal ci ñu tabax jumaa ji ci mujjug jamonoom dajale it luñ koy tabaxe dénkaane it ne bis bu noppee ci liggéeyam nañ ko na ñëw fii nañ ko indi fii mu nekk dëkkuwaayam bu bu muy dëkkaale ak ci ñu ko fi ziar Euh, loolu lépp di ay yéene ak i mébét yoo xam ne kon ci njaal benn la ko amoon waaw kon loolu lépp ay sabab la yoo xam ne bokk na ci li tax mu ñëw ci euh, béréb bi yoo xam ne bi jamono doxee lu ci bari euh, leer na bu ko defee nag bi mu ko sancee ni ko waxee def na fi kër kuy sanc da ngay am kër kër gi mu fi njëkk def na nga xam mooy këru boppam gi mu dëkkoon ak njaboot gi mooy fii ñu nekk tey di ci biir jumaa ji euh, nga xam ne moo doon kër gim sancoon mu mu tudd Touba nga xam ne ginnaaw bi turu dëkk bi tuur kër goo la jël euh, nga xam mi ngi tàmbalee kon ci fii jumaa ji fii barab bi jëm jëm jëm sow kon amu na barab bi ak jumaa ji lépp ak aslaf ak ak sëñ ak kër gu yaat daal la woon moo tuddoon moo tuddoon tuuba nga xam ne waaw moo tuddoon Touba euh, nga xam ne ginnaaw bi mu ñibbisee bu penc mi nekkoon ci kanam kër gi fee ca daari kaamil jëm ca euh, ca fële ca bibliothèque bi euh, jëm ci jullikaayu ayit bi penc mi ak jàkk ji nekk ci ci foofu jumaa ji sax Euh, bañ ko njëkkee euh, fondement ci nekkam ci ci teewaayu bi foofu lañ ko fondement woon bi nga xamee sëñ bi ñëw na it ba ci dëkkam ba ba ñibbisi bañ war a tabax jumaa ji nag ñu xalaatoon itam ne foofa lañ koy defar rëddaat Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ci xelam mu rafet ak gis-gisam ak war maam ci sëriñ bi moom moo gis ne kon jumaa ji kat moom ñu rëddoon ko mu tàmbalee ci barab bi jëm sow bu ñuy julli mu ne ci ci ci ci kanam moom la gën a gis ci ñu def ko ca penku di ko wan di wan ginnaaw di ko wan bi bu julli te moom may ilimaan ji mag ji mag ñi rafetlu loolu lool fekk boobu nag muy kër waaw kër ñu toxal na kër gi kon rëdd fi jumaa ji Eh, kon loolu moom mooy cosaanul barab bii ñu nekk kon moo doon kër gi sëriñ bi njëkk defar ci ci ci dëkk bi bi mu fi dikkee eh, ginaaw bi defar na ay kër sañ defar na fi ay kër kër gu gu defar ci sow kër kër gi tuddoon Touba tudde ko Daarul Xuddoos sañcaat kër ci ga ko féete ndeyjoor xaw a saw tuuti tudde ko daarul mm, minan sancaat kër ca sawub daarul xuddos tudde ko daarul rahman euh, barab yooyu yëpp nag euh, ba tey ñi ngi ñi ngi ñi ngi téye seen cosaan ndax daarul xuddos ba léegi mooy kër gi nga xam mooy mooy fi ñu wax bayti léegi kër googee ba euh, mu bindoo nii moom it ca pakk boobee la la nekk ba léegi daarul minan ko sëñ Bachiru moom ca kër ca pàkk ba la nekk daaru rahman moom lañ mooy ko suñu champs nekk kon loolu ay kër la yoo xam ne ci biir dëkk bi la ko defoon kër gu ne mu am lu mu fay def fii nag moo doon kër gu mag gi nga xam fii la dëkkoon mook njaboot gi waaye daaru xuddoos dafa daa wéetal wéet ak boroomam euh, di fa dugg xalwa daarul minan moom it ci kër yi mu daa wéetal boroomam la waaye wax nañ daana ko daana ko na muy nekk ab dal bu muy ay gan daaru raxmaan moom it ci kër yi mu daa wéetale boromam la waaye defoon na ko muy barab bu mu daa dalal ay gan rawatina gan ñi nga xam ne ay e, doomi soxna ak kilifa diine rawatina ñi nga xam ne ay naar la ñu woon ba na ci mag ñi ñu daa tuddee foofu daaru naar mooy këru naari gànnaar yi du naar yu fi ci arab <laughs> naar ci wolof <laughs> Euh, kon loolu kër yooyu yëpp kon mi ngi ko euh, defoon fii ci biir dëkk bi di ay kër yoo xam ne euh, gannaawam ak njabootam ñoo ko féetewoo muy kër yi dund ba fii nu koy waxee ñu mën koo xam man faa dem di ko siyaar wante itam bi fi nekkee ci ngir ci liggéey bi ci lu koy gën a jàppandal sanc na ay barab fu mel ne daarul alimil xam ne këram la gum sancoon féetale fa taalibeem bu mag ba jàmbaar ja Cheikh Abdourahman Lo radiyallahu anhu féetale ko njàngaleem alquranul karim kon yooyu moom diir bim mu nekkee Touba la sanc barab yooyu yi ma tudd ni ñu toftaloo nag ci ci ci sanc jàpp nañ ne rek sëriñ bi daal juróom-ñaari at moom am na la am ci ci ci dëkk bi ñu fi ñëw ci atum junne ñett rek juróom benn 1306 ba 1312 mooy wajili man tagrimuhu baana fi saari mawlidi man fil baari rabbaana